wakil Ibrahim Al-Qiyam jaamna bu ñëwee ci biir sax ñu jël seen jox ko jox ca ko jël waxukaay jox ñu yëpp ñu jaam na rek dañ ko teral rek ci biir ngay sangam bu baax teral sometimes do that. balaa muy muy sang yu baax yi waaye balaa muy muy sama soxla bii lay déglu muy bu baax di mu mujj gise ma koy jégalu nag ci suñu xarala ñu maam nga xam ne daanaka waaw maa ngi ñëw nga xam ne daanaka rek ak moom amul ku ko seetaan teewee bi Abdou Mbaye seen woy jur ko ñaan nga jawaahirul mahdi moo tax ma xam seen woy jur moom Ablaye Mbaye bii nekk MDB tey def tafsir man toujours nag damay joxe référence pour nit ñi xam ne li may wax ne Sénégal ñi amul waxee dañuy wax rek ñu naan ah, dama gëm dara damay am booy mooy rek day am na ko rus a dóor na ko jom ba dóor Sénégal nit ñi xam ne kenn ku ko wàcc waaye ba mu am. am naa sama naa naa ko ma ne ko li ko yàlla defal tey defal ko kenn c'est le chef kilifa diine fi nekk mooy seen kilifa mu neex ak naqar su ko neexoon tey lu koy benn bari na te mën na ci dara na wax ma la bàkk la te rey ñu ne lu mu neex ñu rek nga rey nit ñi rek comme gore xaar léegi rey nañ dara dara dara man qatala nafsan bi ghayri nafsin lu ci àllam faka annama qatala nasa jami'an wa man ahyaaha faka annama jami'an gis waxam wax dafa mel ni nañ bëgg yonent bi wala ni mu ko ràbbee ak tàggatoo bu rafet ni mu tàggatoo kii fa mu jëm ragal fa fii mu nekk tey mosu koo nag man xam naa ci wax ngeen baal ma fii lu fi xew maa fi war a ji maa fi war a mucc maa war bale ranger côté yi defar tatagal gan yi teeru leen ñu ngi ma raxas bool yi toog billahi laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum li may wax dama ko gëm dama ko gëm balaa maa gis gëm Cheikh Ibrahima Sall ñu taxaw yow ma fi yàlla dama ko xam ñun xam ñu ngi wér te daf ma doy sëkk war yëpp a ngi toog xanaa kuy fen nga ay ngi toog wala mu sa benn seen wala déet jam li may ñu demee ci jàkk ji fii tuuti rek boobu mu ngi door tàmbali liggéey fii bi mu koy jël lii zone la jëkk teen bi fi nekkoon wala bu may nas lii zone la jëkk soxna si dëkkoon fii jour bi muy faatu man moom ñuy dem di teere soxna si boo ko ndokkali moom Cheikh Ibrahima muur ko man moom a am na kër kii sës ci kër yi ci lu tuuti la tàmbali liggéey bi fii moo suñu réew dëkk kaw la kër wéy juróom alaaji Abdullahi rahmatullahi wa radiyallahu jàkkaarloo ak alquran Fatou Diouf moom nga da ngay jéggi dal yi dugg sama gàttal te jéggi dal yi dugg ak ñoom Cheikh Ibrahima yéen moom moo leen Cheikh Ibrahima ñu daan daje ci góor bu ñu daan wax Malick Sène ku doy waar te tey yaakaar naa ñu bëri xam nañu ay ñan dañuy màgg ak yenn yi di jëm Sénégal dafa am ñenn ñu ma daan ñu ne bu ma leen tuddee ma leen dox ma dina tudd ndax yow nga du mën a yow bu mën a tudd kenn du la xam ma ne ndox ma noppi te tudd ñu bëgg ma tudd ci Cheikh Ibrahima tamit xëy na nag moom na fa nekkee woon na baaxul la naar boo xam ku ma xam yàlla ne waaw loolu rek la ndax toujours ma fàttaliku ndax fa zakir fa inna dikra tanfa'ul mu'minin fa inna fa zakir inna nafa'ati dikra waaye mooy ndax la baal ma monsieur le maire léegi ñu lay wax maa ngi koy koy moom sama xarit ñoom complicité bu dox suñu diggante ci ñun ñaar léegi bi may romb buntu këram dama ne dama gis gars yi taxaw oto yu bari ma taxaw ma ne ba suba bi la laaj jëral ma ki ma yem ci moom ci sëñ Macky Gassama ma ne ko yow kat waroo kan ndax yow sa bàyyi lañ tuddee Macky Sall sama am dañ tuddee Macky Sall yow waroo ran fii de mu ne ma lan moo de monsieur le maire laay xam ne kaw ne ko maa ngi ñëw ci campagne ci laa bokk ma ne ko bëri léegi xaw ma kon ñun ñëpp dañuy waxante jàmm rek ci la lépp xaj Cheikh Ibrahima lu ma guddal ma mënul ko lisee nii ni ma ko doon Cheikh Ibrahima ci benn jotaay xajul ci benn sax ci ay ndax man dama ko xam lu baax a baax te alaaji ma day tànn bële billahi dama dama wéet alaaji Malick daal gën a toog du ma wéy Adja Kumba Caam xaw ma fu mu nekk du ma wéy ñooñu ñu ci Cheikh ci Guédiawaye Sénégal dëkkoon ci Nord Foire Adja Kumba Caam ñoom alburi ñii wax kii dënd fii tey ak tëraayam bu nekk bii yàlla yàlla doon leer lii ngeen def nag teew ci benn yoon tey mooy ñaari yoon waaye seet leen ne saa su daan am dafa fi daaw tey kii maa ngi am waxtaan bu may def fële ca sàkk monsieur le maire sànni naa leen ndax tali bi romb sama sàkk sama kër dara ci sàkk tali bi ko romb romb bu ci kër bàyyi ma Cheikh Al Islam naa ci bàyyi ma bàyyi sorewul naa ko 2003 laa fi am ko ko ay kàmb yi war na fa ñëwoon. dégg nga ma xëy na gis ni góor na ko dugg lépp mu mel ni ko dugg tàppe am. ma ne baax na ne waaye bu leen wote di ko def boo ko tey. loolu laa ci nekk damay dem ni ma ne bu ko kenn ko def boo ko tey. nga deux mille trois ba léegi dootu ko ne ko tey ci àjjuma ji góor na ko def góor na ko ne ko matul douze heures de temps kon ñoo ko ngeen baal ma waaw waaw bay bay bay émission bi ngay ngay doon defal ni tamit nañ nañ leen a jëlee waaye yow côté la noor Sénégal foog ngeen am xaw ma ko gën a kii sama yoon dem ci ko gën ci laa ko jëloon nag ma ne ah moom de xaaral ma la mais élection bi nag moom la war a defal géej waaye waaye baa benn géej waaye yëpp bàyyi sama man mii xarit man maa faa weer sama bopp te mu ngi nii toog mu bàyyi ma wan ko ne ko mën naa baabe te am naa baabe baabe sama suñ ci gën gën koy ma baabe gàttal ba laaj parce que ñëpp ma baabe loolu ko waxale ko kaay xool maa la dàq baabe kon ma tooñ ko lépp moom xaaru benn émission mu defal géej waaye campagne la waaye kër ka nekk xaw ma kàddu ka nekk sa moo ko teg kon nag maa ngi jégalu Cheikh Ibrahima pour jeexal sama kàddu fii ñu toog loolu rek mënu ma ko monsieur le maire imam maa ngi lay sant di yow du jiitu laa dama tax a sonn. ñoo ko seetlu leen stable lul. dawoo daayoo bàyyiwoo. fay ku am jom nga ku am war yow imam Cheikh ku la ku la naw la ndax sa fulla ak sa fayda ak sa personnalité dee ñoom de bu la dara xoxat bu la kenn xoxat kenn tariwu la ci yàlla kenn tariwu la ci yàlla ci diin man xamaa na gis nga fii bu ma fi ñëwee du ma am sago ndax dama xam li xew te sëriñ Cheikh Tidiane si leen bokk ci coow li xam li xew ko gën mën a waaxu xam yoon ko gën bari pexe sax yàlla ko te yéen nag sax ngeen yàlla kon Cheikh Ibrahim li ñu ma defal fii ci gerte bi du ma ko fàtte ila yow la ci fii la war ci gerte muy meññ ndox ñaari ndox sore yaa ak Maria ci benn kàpp ma ñëw rek di keroog perte bi kon laa maa nga toog buntu ba léegi fii di fees def fii di fees def li may wax yaakaar naa ñu bëri fees na ci biti ba ci biti laa ko ak perkaal bu bon doomu bàyyi boobu le maire de Kaolack moo doon doomu bàyyi la woon xalifa xalifa Ibrahima Niass moo doon maire de Kaolack jamono boobu mu ngi fi woon kii ba yëpp a ngi fi ma jékki-jékki ci taar ba ci rafet. ci service ci seetlu ci bëgg nit ci personnalité ci xam doomu aadama foo ko doomu aadama mu ne ana Chérif Ibrahima ma àgg ca gàllankoor ma ñëw ma ñëw toog ma toog ma ñëw sobe yaa yow laa ko bàyyi yaakaar naa ñëpp ñu toog lii sëñ maam sëñ borom wax daal la borom daal rek moo daan wax ne ku sëñ bi ñu borom daal doo ko mën a wax dëkk daw dëgg daw rek man sama jur bi sama jur bi ko dagg ci saa si ba dëgg maa wallaay borom daara ji moo ko daan ndeysaan mu ne ku sëñ bi ñu ko daan 我们的对方要对方各弄各回对方。第三是咱们不是国家，谁看看？他们都没有，没把黑的我们一等，又来把黑的出来。madame ma nekkee pare woo ne ko baal ma de waa mais bàyyi ko sànq da nga koy baal sore yaa koy fay nii kon loolu est ce que naa ko fay Cheikh Ibrahima ay bokkam ak ay najaay mu ngi toog ay sëriñ mu ngi toog ay magam mu ngi toog ay ñëpp mu ngi toog mu ne ma yow laa bàyyi ko sama yaay ay may daal di ne Mariam ma maa ngi ko bàyyi xalifa bi ko rey quoi loolu ci jotaay fii la woon fii moo tax keroog li ma toogee Charles de Gaulle te xaaral ma Fatima da yàqee Fatima waaw ma toog rek ku ñëw nuyu ma fay ko yow la kat mu man la Fatima doomu Cheikh Ibrahima ne ko man ku baax naa laa xam bu yàgg waaye nag xëy na àddina ma ne baal doom yow sama sama sang ko xam foofu lay jeexale am na sama xol moo sóoli gàttul fan gudd na fan moo indi lii yëpp waaye bu ñu sañoon bu toog fi at bi ko ñi si ñi ñëpp yëpp toog xajoon na fi waaye lii la neex yàlla Alaaji ma lay mën ma bàyyi ma fekk daj naa ci lu ne guddi ak bëccëg Alaaji ma lay nii ma bàyyi ma daj naa ci lu ne guddi ak bëccëg pour mu ko waaye yàlla teel ko jaam la ko jaam la ñàkk yàlla alaaj mari bi ma bàyyi ma fi du ma tudd kenn te booba am na ci lu ca raaxoon bu fekkee raaxaloo ba mbir la woon daan dugg alaaj mari sax di ànd ak ñëw ci man ndeke ñooñu sax wax ko gudd woon mu toog gannaaw bi am na te bu ñëwee kat day may wax ne na fi cheikh bi toog waaye yàlla moom gëmul nelaw mu ngi nii laa ta'xuzuhu sinatun wa laa nawm ci jeex wallaahi macha allah loolu bokk nañ ci ñi ma gën boo ma doon laaj dina gën a la am man xam naa ne cheikh bi mënul na fi toog te ma ne lii ma bàyyi billahi la ilaha illa huwa lu ne waaye nag yal na yàlla baal ñu sax ci wax Cheikh Ibrahima ba ñu njëkk a xamante ca kaw la ñu wax ma jàpp Malick Sène Malick Sène xam na jàpp Cheikh boobu Malick Sène séeréer la sama bopp yaay man sama yaay ñu fi sant dëkk ci suuf man ci wax ko buur seen kumba loo fee laa ci wàllu ci yàlla dogal Malick Seck daan liggéeyee mairie oto mbalit bi mam ko foos ci la daan am lu sax bu wàccee nag ci oto bi teeral lay ñu amul doole oto doon am leen mu leen di leen gasal foos ko ci fayee bu jëndi ci cere poti meew gënoon yaa boobu quinze francs lay jar ñetti dërëm Dulu kau baca. Mungkin dia ini mungkin gue lori ya. Jadi cek, jadi cek. Lo, nak cek lagi macam apa dong? Nyubuhnya, lah nak. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Syekh Ali Salaf, dia bilang itu itu sepotan. Amin, amin, amin, amin. Lolong dia yang. Kon Syekh Ibrahim, Malik Syekh doy waar foog ñu xam lu may wax Malick Seck juróomi cinquante deux ans la ci la toog door a commencé di julli dem ci lu ñuy wax maam bu jaw mu jox ko bari keroog bi mu ko joxee ko effet bi daf ko def ndax dafa di may ñëw di la ziyaare saa su nekk wala nga jëlee gis saa su nekk dina ko déggee dina gis saa su ne ko kon ah yow man ci gaaw ci dëkk ko kon ah yow man ci gaaw muy def nag bu ñuy def bu guddee foofu la ñuy toog ci waxtaan daal lu dëkk sa bés bi mu indi ko kalu gannaaw gannaaw seet yeew ko ci daal dina am na fi ñëw tey ci ron ci yàlla foog nga te weesu na moom lañ ma wax ne naa ko jox danaa la ji te bu ñëwee dinaa ko wax ñu dem digaay ak leen digaay maanaam fi muy tàmbalee ba fi muy mujj dinaa ko wax ñu toog tuuti rek Cheikh Ibrahima nuyu mu ne kii laa leen Ibrahima Sall Cheikh Ibrahima Sall mu ne kii laa leen mooy borom danaa la daal di ne ko sa sëriñ liggéeyal na ci yàlla loo mënta am muy sëriñ Xasan Jam te boobu nit doo ko laaj ko la ko la jox xam man xaw ma woon sax boobu Cheikh Ibrahima muy sëriñ njëkk ci Cheikh Xasan Jam muy sëriñ Cheikh Xasan Jam Cheikh Al Islam muy sëriñ bu yëkkati gannaaw bi jox ne ko toogal mu wax la toog mu ne ko doo mujj fii yaa ngi mujj Ndakaar soo jàng soo demee dinañ la recruter ci école ngay jàngale école française di nga fa jàngale nangami at soo fa jàngalee dinañ dugal disponibilité danañuy làng duñ la ko jox waaye démissionné wala yàlla dañ taalee sa fay. fii ci sama xel te boobu dara xewoon. boobu dara xew ba ni Cheikh Ibrahima ñëw ba fii ñëw seet si may fekk maa ngi géej waat ñu ànd leen imaam Ousmane Niang rahmatullah alayhi wa rahmatulah dafa bëgg Cheikh Ibrahima ba mu ko tuddee ren la am ba mën a changé Mariama Cissé Mariama bi ren bii la xale bi am war a dem université kon xam nga na te moom dafa sotti Cheikh Ibrahima te jarbaatu Alaaji Abdoul Aziz waaye Cheikh Ibrahima moo doon bakkan imaam Ousmane Niass te kon jarbaateer léegi waay yàlla dogal ci baax Cheikh bi ñëw may ñëw fii di ko di fekk ak groupe bu bari sax ñu ñëwaat ñu waxtaan ci yàlla muy muy ku am ouverture xam nga sama benn wala rek nekkoon Canada ñu koy wax Omar Dia. ENDS la la jàngale yéen dinaa dina daf ma daan wax ne Cheikh Ibrahima boo toogee moom cinq minutes mu defaral la conférence su dix heures de ay baat yu gàtt yooyu muy tënk. kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon itam Mawlaay Cheikh Hassan Diagne. maa ngi leen di ziyaara ziyaara istimdaadin wa tabarrukin wa taalluqin wa tawassulin bi jaahi abiikum wa jaddikum wa shaykhikum shaykhina wa qudwatina mawlaana shaykh al-islaam Alaaji Ibrahima Ñas Baay kon nag yéen yi nga xam ne algorithme fàtte wuñu la waaye relève bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm te wax leen ne fii leen gërëm man waxatuma yenn yéen Mouhamed Abdallah waxuma leen yéen doom ngeen toog leen rek réserve ngeen équipe boo gis am xam ngeen boo gis am na réserve dana élarg buuf xew bàyyi ko xew Sadio Mané léegi mu màggat léegi mu xew yéen ñii yéen a fi nekk juble baax na nooy la wàcc na góorgóorlu leen ci seen àll ba te fonk seen i waruñ wax def leen luñ leen sant def leen luñ leen tere bàyyi leen fuñ joxoñ dagg leen lii danaa leen dëggal ci kanam ñëpp yéen ñi Cheikh Ibrahima Diop ñii seen i baay ñii seen i maam ñii seen i sëriñ ñii seen i nijaay amul leen ñoo xam ñun man man maa ngi ñu am nekk lii laa bëgg ci kër gii muy def Cheikh Ibrahima fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin monsieur le maire xëy na sama digganteeg Cheikh Ibrahima am na lu ma ëppale woon ak yeneen yoo xam ne kenn mënu ko tudd yàlla sore yaa mokkalee alquran man la jëkk woo téléphone ma ñëw ci kër man ci léegi ne ma toogal ci kaw la ma bokk naa ñu bokk topp ma sa doom gise gi dama am fier nii la ma ko ma ne ko ban fier bi ma sa doom loo xalaat man dama xalaat la yóbbu ko France ndax nangam ak nangam ak nangam ma ne ko ah man daal am naa xalaat benn mu ne ma ne ko yóbbu ko mu taree alxuraan ci kanam bi doon ko daf koy def si ban sax mu def yonent bi dégg baat sa doog it toog ci kanam yonent bi man moo ko gënal France man ma loolu laay def yaakaar naa sori yàlla moom ngay ñëw te dañ ko yóbbu yàlla bi mu dem ziyaare ji yonent a sallallahu alayhi wa sallam kon daal ci gàttal kii tëdd fii mooy Cheikh Hassan kii tëdd fii mooy Mawlaaya Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima kii tëdd fii mooy Cheikh Seydi Ahmad kii tëdd fii mooy Rasulullah kii tëdd fii moo doon na yàlla wutu ko ci kaw suuf radiyallahu taala te bàyyi waxal ko te nañ dem ba ca man mënoon nañ ko yóbbu fu nekk yëpp dëpp ci biir mënoon nañ ko yóbbu kaw la mënoon nañ ko yóbbu feneen ak feneen ak feneen bu nga xeet yëpp dëppoo ci biir dañ ko bàyyi fii loolu nag yàlla nañ ko muuroo ñun moo tax monsieur le maire si jotaay fii du àll te yéen tam tamit ñii ñu am wëllëre ñu fidèle ñu xam yàlla ñu jubal yàlla kon nag maa ngi jégalu seen jàmm xam nga jàpp moom bu ko taalee rek day sax jàmm loolu rek la waaye jàmm moom bu ko taalee rek day fàtte ne jàmm jàmm doon jàmm rek waaye bu ma ko fi ngir dara nag léeg-léeg ma fi doon fay ko alaaji Malika alay sant di gërëm di seede lu yëpp comme Cheikh Ibrahima tegoon alaaji Malika koy dundal ci ndigalu Cheikh Ahmed Tidiane bi ak yéen kon nag yal na yàlla dëgëral si taxaw ah Cheikh Oumar yow moom xam nga démb la woon démb la woon ñaar sa baax ñu ngi sëñ bi sax bu baax moom laa fekk daal muy def muy def teel ma la teel bi non teel waaye nag nag waa bi nii su nga doyoo buñ ko weesoo dafa def ba yëpp nag nag waa bi nii mooy laa moom yaay lépp Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima lépp ci yow kon nag ñu ngi leen di sant ah. di leen gërëm te di leen balu xàq ci kàddu yi lu ci am lu rek sek sax maa koy jéego waaw mais ajara ko ma fay xaw ma ko ñu ko woon a sama sœur la suñu yaay yi ko mu bàyyi keroog bi mu waree jël bari tam fer bi daa vide dama ne ko kenn yow kenn Cheikh Ibrahima daa vide dama ca moom man maa tax mu xamanteeg Cheikh Ibrahima doon dem suñ seen politique yaa jàkkal loolu bari na nit ñi ma jàpp ci loxo indi leen fii ci kër gi moom Cheikh Ibrahima mu jox leen bari bari te ma mënoon leen yóbbu ci awoon waaye dama gëm ci ci di Cheikh di jox ni ngeen war ko yóbbu ci awoon te indiwu ko ci moom mu ko bari amul te pourtant joxe dama ba ci Seydi Damaane di Cheikh di sëñ Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ak bi ma njëkk a gane seen fii laa ko njëkk a indi ci kër gi ak bi ma njëkk a gane seen fii laa ko njëkk a indi ci kër Cheikh Ibrahima lu ma mos a am ci àddina rek ci moom laa koy pour ma jeexal professeur Amadou Tall bii laa jógee ci quatre-vingt-quinze bi may tudd sama benn doom bi ma tuddee yéen a tudd Cheikh Ibrahima bertanya lagi sering kalau bilang doanya itu yang mulai mau ini mau ini syaitan bilang nanti mau hati Usman bilang mau ini kalau apa boleh dan tidak begini bukan. Mercedes bi fi moom professeur Tall mu ne sax da nga ko jëndee woon quatre-vingt millions à quatre-vingt-quinze premier Mercedes bi toog ñu mën a ci réew sama dugg la ko njëkk a indi pour war la martaba Cheikh Ibrahim sàll biñ tuddee mu war a ñëw aussi te wi daal Ousmane bi daal def na liggéey

def nga am ko ma ne ko billaahi boo ciy doo ko am mu ree ma ree mu ñibbi te mu ci un mois mu wàccee bu mel noonu teg teg amul benn digal daal di ma woo téléphone dama ñaan ñaan ma ne ma ne ko ban ñaan ku ne ma ba nga doon wax am naa ko ma ne ko waaye yow ngay am avion naa ci liñ daan liñ daan liñ daan tooñantee wax ko yàggam dina am yiw le présenté nekk yaakaar dinaa am yiw bu présent waaye waaye nañ àndee noonu nañ àndee noonu ngir yàlla kenn mën taxañ sa borom loo war a am suñ ko gëmee rek ñu Cheikh Ibrahima ouverture la ko yàlla xol bu ubbi àddina yëpp ne pàcc sa biir kër in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah waaw neexu waaw neexu ma ne lu mu wax yëpp xam na ko garabu am na ci taalibe yi ci jiitu woon damay fàttali tur nekkuma xam na ko te da ko jaaw ku góor la jeng jeng jeng jeng Ibrahima jeng anam gaan mun na may ak yow mais ko xam na may yow taalibe yi ci jiitu ci la ko Ibrahima doon ko neex moo daa reeloo Cheikh ndax ñun sëriñ si foofu ñoom ku mel ni ñoo ay maay sëriñ si bu ko sëriñ si bu ko Cheikh Ibrahim allahumma na abdoulaye ku yàlla dimbale mais attends xaw ma ko góorgóorlu ku yàlla dimbale laa waaye ndax loo góorgóorlu benn jël waaye góorgóorlu ko bu ne am na tus mu ne ku ànd dimbalal yàlla moo fi nekk waaye ku góorgóorlu amul ndax moom lii ko yàlla defal muy Cheikh al Islam kooku day jeexale sama kàddu parce que même maa ngi ko wax benn waxtaan ma ne dem Sénégal nii bëggee booloo ak nii bëggee dara su fekkoon ne lii kii bi ko diine yi ma am na am mën nañ ko am ku ci nekk dëgg la wala Sénégal ni bëggee dara ak ni bëggee mbooloo bu fekkoon ne lii kàcce dem kaw la mën nañ koo am di nga gis ku toog lii dégg yéen man maa la ko bu doon ñu sëñ Tuubaa am ca Tuubaa yomb li nga gis koo xam ne gannaaw Mbàkke lay lii dégg yéen pour bu sëñ Tuubaa bu doon ñu sëñ Xaaju Maalik am yomb da ngay gis koo xam ne pour lay toog pour ku ñëw ba dégg yéen waaye asaabiquun saabiquun ulaa'ika al-muqarrabuun kenn du la ci bàyyi. doy na sëkk tey ci laa bëgg a wax daal am am na sëkk doy na sëkk yàllaa ji ma ne xam ne ma ne wax toujours dama dama ciy wax doy na sëkk nga dem Nigéria bi taxaw ci waay man am naa wala leneen boo xam ne ngeen baal ma alay jeexale bu fay ñu de dafa dem tëj ci tëj ci affaire yi ci dem bi bi wat dama tudd turam mu dem ci mbooloo bàyyi ko bëri waxtaan ci bàyyi affaire la. kenn wala abal abal ba am képp incha allah rek. demal ne def na. mu waaj bay jëli si def benn conférence bu baax waxtaan boo xam ne moom dégg nga dégg nga passeport bi xam ne ko seen yóbbu di jëlaat imam si am na bi ñaan ko si gis na ala bari bari de ko bare na ko ñu gis di di def naa na doon waxtaan ci bari gars yi xaalu rek ñu ngi passeport jël nañ ko rek di fàttali ko si dina de barke am leen ci def na fa trois mois ba di ñu gis xam nga loolu ko sax joxe ko fa daal ñooñu mën nga fexe fexe fexe dañuy gëm bàyyi mënoo kii lekk passeport wax gëm bàyyi kon ku nekk ni la bàyyi nit ñi yàlla jox ñoom ñëpp ñu am seen ko xol kenn ku nekk li ko yàlla jël ni ko ko bàyyi bàyyi yàlla ko ci xolu yàlla kenn na ci dara yàlla ko ko terale ñëpp ñu nangu ko ko ñëpp ànd muy fay ci pays bi ah. ko ko bàyyi ko yal na yàlla defal ñu sutura la ci barke yal nañu yàlla defal sutura la ci barke Cheikh Al Hadj Omar Cheikh Mouhamadou Baqi sëñ Habib sama xarit sama soppe maa la soppal sama bopp bu la neexee yow nga sopp ko la neex waaye man maa la soppe billaay man maa la sopp ndax sa sa jikko sa wàcc sa wareef sa nooy sa lewet sa dal àddina boo sopp noonu gis nañ nit balaa nga koy jubboon ci da nga koy gën a jub te am na ñoo xam ne boo leen gisee loolu dëgg dëgg boo leen gisee te yow ci la la yàlla yow. allahumma la yàlla sama làmmiñ bu la lool waaye ku am yaakaar ci yow bu ma fàtte ci ñaan ku am yaakaar ci yow yàlla seen yàlla defal taxawaay bu mat sëkk dëgëral say jël برهام باء وراء ألف ثم هاء